nuyu naa la. waaw Bokar maa ngi lay fay sama doomu ndey. nga nekk si euh, parab bi ngay liggéey liggéey moo jaay nga nekk responsable Sokey ñu def am ko fel la commissaire au départ te lan nga mën a wax tey jii. waaw mais xanaa di di féliciter Sokey rek. ñi ngi yaru ñu ngi def li leen di wax boo xool léegi affaire bi mi ngi changé tey jéeg vraiment léegi nii amaguñu benn lu ñu mën a signalé vraiment ñi ngi góorgóorlu daal te aussi yéen communication bi aussi yéen nga ciy jàpp bu baax. man li may wax rek damu yéen nee naa leen lu lu baax communication moo ko defal parce que ñu nit fi suñu kàddu mën a bëgg a ñu fa mën a yeggalee mooy dañ Jokalante da si ñëpp jàpp rek ñëpp jàpp ci gis nga bu rawante bi rafetee rek problème du am. lan tey lan ngay promoteur yi toog di sant di sant as ak sama papa foofu saxi jaam di ko tey ban appel ngay lancé borom fas si sooke yi tey jii. waa di leen di leen rek borom fas seen njaboot la en passant may félicité sa papa euh, professeur Saxi Thiam si ñett ndam yi ma am nii ndax mérito na ko mi ngi jàpp si élevage bu baax mi ngi jënd mi ngi dimbali xale yi loolu ñuy jëndee si la ñuy développé seen élevage xam nga Omar Ba junior sama sama cousin la day wax borom fas yëpp nañ gën a jàppale yi rek xam ni ñoom seen doom la ñu comme suñu ñoom suñu sama papa ñun suñu bàyyi niñ daan yore jockey dañ lay jàppe comme sa doom bu ñu leen ko defee rek après doo am problème bañ leen jàppee kooku affaire liggéey mais comme seen njaboot daal loolu rek ah, kontaan rek kontaan quoi wax dëgg rek di remercier Laye Sarr ak ak ak yow nga xam ne teel a l'international kenn amul sa fay. waaw Bocar mhm. euh, ngi doog a euh, triomphé mhm. parce que ba course jeeg léegi ñu ngi doog a ñetti première alors loolu loo ci loo waaw mooy sa liggéey bu rafet di la remercier di la encourager di la féliciter bu baax parce que liggéey la parce que wax nga ma ko bi nga jàppee 3 ans yi bu yemoon foofu rek dafay neex macha allah liggéey la boo xam nga nekk si kër gi booy lu may wax rek mooy di la féliciter di wax booy nan topp sa ginnaaw ñu xam ne yow leen des na nga moo def loolu nañ ko nangu topp sa ginnaaw bu ndégee li nga am ndam si kattan yàlla Euh, loo wax ci AS 221 seen liggéey bu rafet bi ñu nekk di def. AS 221 di remercier Gorgui Sakhi Thiam parce que def na geste bu mag wax dëgg yàlla acte bu rafet di leen remercier AS 221 yëpp ak euh, suñu ak suñu internet suñu caméraman technicien yi ñëpp di remercier Oumar Bao Junior Sakhi Thiam. maa lay ziar. bi passé macha allah journée bi passé nga doon ko Abdoulaye Dieye Thiès gépp mun nañu xam journée bi keroog la moo sa secret ba journée bi fees sa bopp la si di la affaire moom boo nekkee ci liggéey rek suñ borom mën a jàppale ci lu bari donc na nekk ci liggéey rek ñaan yàlla suñ borom jàppale ñu ba lépp lu ñu am rek suñ borom barkeel ko. te ñu gis Dakar port boo xoolee tey ji ak fi nga nekk tey milieu bi ngay liggéey mile xar bi kenn bàyyiwul tey ji ba tey boobu sax am nañu fa jógee ba tey tey am nañu bëgg a tëgg ay journée ndax sa journée keroog mën ñu xam lan moo war réussite bi en 100 pour cent. waaw mais réussite xam nga nit moom bu wootee nit ñi wuy si rek na sant yàlla parce que nit ñi li may wax rek kenn mënu leen loué donc lépp tamit peut-être xaj na ci yoon bu ñu nekk la rek ñoo xamante ni tamit sas la ñu bañ a wàcc yoon bu ñu nekk waaw loolu loolu laa man sas laa ko jàppee daal ñu bañ a wàcc yoon bu ñu nekk rek noon laa ko jàppee waaw. na nga gis AS221 di remercier baax jàpp ñu leen jàppale ak AS221 euh, noo gisee ci course bi. waaw non ça va AS221 maa ngi leen di suivre mais sa va daal franchement yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo ñaan yàlla yàlla barkeel seen liggéey rek. ngeen gën a am yeneen matériel ba mën a couvrir course yëpp daal loolu rek laa leen ñaanal incha allah nga nuyul ma laay ndooy bu baax. lay tons ñu gis la tey nga ñëw si course bi tey ñu def tey ñu def journée ba mën a def benn évaluation nga mooy journée treizième journée tey jii. waaw ñu ngi sant yàlla rek xam nga course yi comme ni nga koy waxee rek yi ñaan yàlla mu dox euh, gis nga journée bi tey treizième journée la mais journée ordinaire la. mais sant nañu yàlla bu parce que fas yi bëri na rawante bi neex na quoi. ñu gis tey ama euh, privé yi ñoo ngi si course bi tey di tëgg mel président Sidi Ndaw tëgg na dimanche passé bii di ñëw Doudou Sarr ak euh, euh, Doudou ki mu ñëw war tëgg ak beneen journée boo xam ëpp kii la grand prix nekk ñu gis gars yi ñëw daal. waaw loolu la loolu lañ dem ñaan yàlla promoteur yi ñëw. Ah, te je dimanche nu mu sax ki le 21 bi course bi ñu war a tëgg tamit course bu neex la nan yàlla ñaan yàlla mu mel ni comme bu Sidi bu Sidi moom beneen affaire la waaw beneen affaire la moom. boo gisee taxaw as 221 si épine. waaw ñu ngi ñu ngi di sant rek ñu ñaan yàlla rek ngeen nekk yor ay télé di ñëw comme ni ko gars yi di defee rek suñu course yi avancé parce que affaire yi il faut ñu yaatal ko rek ñu koy yaatalee rek yëpp dox incha allah. frère Sidi ngeen organisé grand bi wëri

tey gars yi est-ce que de première édition là wala fofu rek lay non première édition là parce que li ci gaay xamul nekul grand prix AIBD mais grand prix président Ablaye Dieye donc tay Ablaye Dieye su nekkone ministre wala lu mu mënti doon grand prix bi day continuer di wéy. bon loolu ndorte la rek ñi ngi ñaan def koy édition yu bari ak yu bari ànd ko ak Sidi Ndaw ànd ko waa épisode ans ànd ko ak toute la population thiessoise ndax sen taxaway rafet na trop ñi ngi sant ñëpp bàyyiwuñu kenn vraiment taxaw nañ ci xam nañ ni Ablaye Dieye seen Ablaye Dieye la te vraiment sant nañ leen bu baax boobi barbaru dama la bu yàgg musaala amar baa dem baa